est-ce man laaj la ndax yow am nga ambition dugg ci làngu politique. fan la man waaw. waaw ci xam nga xam nga politique damay wax nii hmm. comme jamono bii ñu nekk. jàpp naa ni Sidi amal ku ci waxul rek yaakaar naa ni ëllëg mën nga ci am benn responsable bu rëy a rëy. ah bien sûr. lu tax fa la réew mi toll nii. acca bisimilah. parce que liñ gis Sénégal. Hmm. gis ko ci sunu dëkk bi. Hmm. Cheikh xam nga première jamono cooy. da nga ci tiit. voilà waaw dama ci tiit. booleeg jaaxle. ah parce que réew mi ni mu mel ñun ñëpp gis nañ ko. xam nga dëkk bi am na jàmm kenn wérantewu ko mais xoolal li indi jàmm xam nga li indi jàmm. tey par exemple boo xoolee ñu ngi remercier suñu force de l'ordre yi macha allah ñu ngi daj lu nekk. ñu ngi sonn lu nekk. ndax da nga ciy xam dara. mais da ngay xool it suñu doomu dëkk yi nga xam ne tey suñuy doomu bokk lañ tey seexu ñu ni seen bàmmee a ngi nii te lii moo ko indi kon loolu ku ci tiitul doo nit. ndax bu doon benn nit sax. wallahi même boo ko xamul xoolal tey. Euh, ay waajuram liñ nekk di dund tey dafay nekk loo mooy li may faral di wax euh, par exemple fu ñu tuddee turu diw nga xam ne sama doom ci lii la deewee woon wala sama lii ci lii la deewee woon kon dëkk boo xam ne nag bu demee ba àgg foofu ah ku ci tiitul doo di chef xam nga lu tax ma xam nga lu tax li ma wax nii ma koy dëggal nit lu mu tàmm ci lu bon mu indi musiba ci lu réew covid dafa am dëgg la Sénégal amul moor ñuy dégg Covid rek. Mm-hmm. Covid Covid Covid Covid. Mm-hmm. Mm-hmm. premier mort bi ñu njëkk am Sénégal dafa mel ni kooku. lu rëy la ko Sénégal def. ñëpp di bind ak di ko statut ak di ko wax ci nit Sénégal enregistré na. premier mort wallaahi. ñëpp tiit dëgg la deuxième bi ñëpp tiit troisième bi ñu tëj dëkk bi. bi ñuy am trois ou cinq. ñu tëj dëkk bi. gis nga bu ñu tàmmee booy yi di di wuy ji suñu borom nii di mm-hmm. faatu di faatu di faatu à un moment donné mm-hmm. dañuy miin dee bi dëgg la day jugal réew mi ci beneen guuta dëgg la mm-hmm. ko dëgg la fexe ñu ko stopé foofu jël ci ay matuwaay dëgg la li xale yi bëgg ñu fexe nu nu ko defee dëgg la ñu arrondir angle xale yi peut-être mën nañu am bañ am dëgg à cent cent cent cent cent pour cent. Mhm. parce que nul ne détient monopole vérité. dëgg la nguur gi tamit ñoo am dëgg à cent pour cent. Mhm. il faut ñuy ñiy jóge fii. Mhm. ñiy jóge fii ñu daje te gis nga amul dara ci àdduna euh, su yéen ñu baax ñi toog fii. lu ñu mën a defar ci àdduna te amul waxtaan. dëgg la de. waxtaan kay. dafa amul parti bu ko ciy daw. mais dañuy juboo. wallaahi dëgg te man gëm naa ni. barke ki yonent bi. Hmm. sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. jàmm dina am. Ah, amin jàmm dina am. amin hmm. léegi ci loolu. waaw sa question bi. pour daaneel la ko am maanaam. waa xam nga seexu mooy lim tëjee. gis nga dañ daan faral di wax ni. tey euh, nguur des koy wekk. loolu yàlla moo ko def ndax nguur sunu borom ay seet ku ko neex. def la ko waaye dañuy bëgg ni nguur it yërëm askan. dëgg koo yërëm doo dóor mm-hmm. Mm-hmm. da ngay yedd waaw xam nga réew mi fi mu toll nii mm. ndaw yi xam nga yéen a ko wax sànq seen émission bi macha allah géej gi yéen a ko waxal seen bopp ñi ciy dugg mm. tey ak baaxoon nag ministre de la jeunesse toog ni lii ak lii ak lii maa ngi koy noot ci réew mi wala nangam ak nangam nit ñi bàyyi ci xel fas yéen xam nga seexu nit mën ngaa toog sax sa xel dal ngay espérer moo gën nga ñàkk nga ñàkk nga ñàkk. waaw parce que boo yaakaaree. xam nga boo day fekk nga gis cin li. dëgg la. waaye tey boo toogee xaar ah, muy baxal. te dara nekk mën naa indi sama hmm. boobu nga wax ak situation réew mi. dafa am benn politicien bu tudd Ousmane sant Sonko. Hmm. den wax ne dafay def grève de la faim. Hmm. yow loo ci wax en tant que nit diine. waa xam nga xam nga. am na ci loo xam ne xam nga dama doon déglu Serigne Cheikh xam nga ne man ñoo ñooy samay kii hmm. Serigne Cheikh sëñ Bay Jaxate Serigne Sam Bay hmm. dafay wax ni nit ki boo xamul vocabulaire am bu ko atte ci sa vocabulaire hmm. ndax nee na nit ki boo xamul vocabulaire am nga atte ko ci sa vocabulaire mu ni loolu yaradiku la waaw Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum xam nga Cheikhu comme li Sidi Ahmed wax nit kenn du ko xeebal conviction waaw xam nga des fois amaana moom yëg-yëg bi mu ci am xam nga tey man bu ma yëgee ni Cheikhou mi ngi may néewal doole sama xam sama bopp laa wax nag. Mm-hmm. ah ci biir néewal doole bi nii laa ci mën a defee. Mm-hmm. pour man cee am jàmm. Mm-hmm. Aziz dinaa ko def. su ma wóoree ni Cheikhou mi kat nangam sama gis-gis daal. peut-être moom gis-gisam la ak it comme tolluwaayam la ak na mu ko bëggee. xam nga tey bu doon mën a amaana mën nga ma ni bu boobaa nooy def xaas mën naa la ni bu boobaa lii du ma ko def waaye comme moom yëg-yëgam la mu def ko. dañ ko ci dañ koy ñaan mu dañ ciy ñaan dañ ko ciy ñaanal yàlla en plus mu jur jàmm aussi. non ci actu grève de la faim bi. en hmm. que nit diina la loo ci wax ci grève de la faim bi léegi nañ ko génne. moom mais da nga doon xam exact ban ban kii la ko defee. ban contexte moo tax ma ne nañ ci génnee moom moom léegi nañ ko ci génne. léegi waaw bu doon mën a ci actu grève waaw bu doon a. wax naa la man naa ko def. l'islam may na la ko. man laa wax man. non question bi du yow léegi. waa waaw léegi mais mais man. non non nee na mais nag. <laughs> nee na léegi moo tax fa li may expliquer man. Ah. léegi génnee naa Sonko. waaw génnee naa la yow. dama leen laaj en tant doomu daara. kilifa lan nga wax ci grève de la lan nga wax ci ku ñu tooñ. question ngay tontoo question. non dama laaj rek. non man dama fi toog déedéet la tooñee. <laughs> nit naa man grève de moo tax ma laajal la rek. ok. nañ jàll si. waaw man satisfairuma mais man gis naa ok ok parce que da ngeen di kii. waaw waaw bon hmm. c'est pas